sëriñ Jili mii nag ci njabootuk sëriñ Modou Fadiama la bokk di ab sëtam sëtub sëñ Modou Fadiama la waaye sëtub sëñ Mor Jaara la ndax waajuram bu góor sëriñ Amdi Mbàkke lañ koy wax di doomi sëñ Mor Soxna di doomi Maam Mor Jaara waajuram bu jigéen soxna may soxna may Mbàkke lañu koy wax di doomi sëriñ bu sa Dieng di doomi Alaaji Mouhamadou Faadal waye soxna may momu di wajuram yaayam soxna xadijatu ñang lañ koy wax di doomi serigne modou xëri ñang di doomi serigne modou faajama kon ci kër gi la bok serigne jili momu nak duñ ko xam xamle tuti dañuy wax ne mi ngi jang bayam bi mu maté dal jang mi ngi ko joxoon serigne Habibu mbacke mu mak moko dalal jang ginnaw sëriñ Habibu la ko joxoon ginnaaw ba mu jox ko sëriñ saalihu moo ko dalal jàng mu tam li tàmbalee fatiha bu suuratul mulk ci daare sëriñ saalihu la ko jàngee ginnaaw ba nag la fa bàyyi ko dem ci daare sëriñ abdoulahat buso moom sëriñ buso ilimaan fala eggalee am njàngam li tàmbalee suuratul mulk ba mokkal fa alquran ginnaaw bu mu jugee sëriñ abdoulahat buso moomu dem na ci jaamihatul cheikh abdoulahat bi nga xam ne tey moo tudd Euh, université Seexul Xadiim bi ñu sanc bu yàggut ca jamono yooyu te sëriñ Silaat Sohay bu ne fa fa fala bindee kaamil fala jàngee li tam njëlbeenuk xam-xamam te mooy yi njëkk a jàng foofa ko jàngee ba la jógee dem ci Al Azhar te mooy école sëriñ Murtala yi nekk ndaam fala ba am sahaadatul fa la ko jànge ginnaaw bam ba mu amee befam foofa mu jugeewaat fa delluwaat ci majaalis ba sëriñ alaaji mbàkke jaxate ci jumaay tuubaa ji mbooleem li mu jàng ci majaalis fa la ko jànge waaye nag yàlla defal ko ak ubbi ko lool mu jàng ko ci ñetti at ci ñetti at fa la ko jàngee ba fa jàngee ci ñetti at fa la tàmbalee way téere bi mu njëkk a way moom la ñu tuddee Muwaahibul Muhiin mu way ci Irwaawu Nadim bu Seex Muhammadu Lamin Jóob Dagana Bob mu weesaar fara ko way ci alaaji bakki jaxate bi maté ñetti at mu wat ndam murtala yi nga xamné ño nek foras mu eggale fa am jangam ba amé fa baccalauréat ginnaw ba nak mi ngi continuer am jangam ba tey ci université bi ndax ren moy darñal anem ngir licence am wara genn tay ji rek la seen examen di do di sànq si tàkkusaan kon yàlla na ko yàlla defal mu adma ceeg jàmm ba tey bokk na ci ay yëngatoom ab waykat la ab jàngalekat la day jàngale majaalis di jàngale xam-xam di way bokk na ci ay wayam ba tey alwafa fi siiratil xadimul mustafa muy téere boo xam ne da cee way ba tey minadul baaxil xadim bu sëñ Mouhamadul Lamin bu sëñ Cheikh Mouhamadul Bachir téere boobu ni mu waree irwaawu nadim noonu la wayee téere boobu moom itam tuddee ko alwafa fii sirati xadimil Mustafa waaye na tamit téere bu ñu tuddee Fathul Maziya mu ci way wirdu murit wirdu bi nga xam ne moom la sëriñ bi def murit yi di ko di ci jaamoo yàlla way na ko tuddee ko Fathul Maziya fi awraadil muridiya ba tey bokk na ci ay wayam téere bu ñu tuddee mu ciy way lu jëm ci wàllu haruud bokk na ci ay wayam téere bu al falsafatul islaamiya mu ci way lu jëm ci wàllu falaasifiya bokk loolu daal bokk na ci ay liggéeyam ba tey nag mu ngi gëstu ak jàng aka jàngale ak a liggéey boole ci sëriñ Abdou moomu moo ñu fas yéene joxe waxtaan woowu xaaj bu njëkk bi te mooy Cheikh Mouhamadul Fadiama Niang fan la bokk nan la dikkee ci sëriñ bi nan la fa nekkee woon nan la ko sëñ bi daan defloo su noppee nag ñu jox sama càmmooy sëriñ Maam Thierno turaas bi nga xam ne moom la fi bàyyee te mooy xam-xam ak mbaax nan lañ koy sàmmee ba mu amal ñu njariñ te bañ a def rek li wolof di wax mujj pusa ba mu réer ci say loxo kon sëriñ Abdul Xaadir micro baa ngi ci sa loxo أعوذ مرشد المعين وصلواته على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الذين شادوا الدين وعلى خير خديمه ذي الفضل السمين وعلى كل من اختفى آثارهم إلى يوم الدين mbokk yi salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi yëkkati nuyoo bu tedd di nuyoo bu lislaam di ci jiital kilifa gi nga xam ne moo fi nekkal cheikhul xadim di cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi mu defee ko ni mu ko bëggee waaye itam di ci toftal kilifa penc mii di cheikh Mouhamadou Lamine Baara di ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool te dolli ko ak wér di ko nuyu di nuyu jëwrinam cheikh Abdoul Khadir ak mboolem njabootu cheikh Ahmadou Fadiama gi ak mboolem soppe yi ak mboolem talube yi tey jii nag di bis bu màgg ci lislaam di bis bu màgg ci yoonu murit waaye di bisu histoire bokk ci bis yi nga xam ne sunu boroom dafa waxoon yonent bi ne ko wa zakkirhum bi ayyaamillah nit ñi nanga leen di fàttali bisi sunu boroom yi daldi wax ne laa xayra fi kasiirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna naas nit ñi danañuy def ay réunion ay waxtaan ay daje waaye réunion ya ñuy def la ca gën mooy la waxtaane ngir def lu baax ngir dundal ak bokk waaye ngir tasaare ak njekk ku ne xam na ne bis mel nii ci bis yooyu la bokk ñu fas yéene waxtaane kenn ci jàmbaar yi lislaam yi kenn ci jàmbaar yi Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñi nga xam ne mu ne sul tudd Serigne Touba akub liggéeyam ba mu jeex te tuddoo ko ca muy Cheikh Ahmadou Fadiama Niang mu bokk ci ñi nga xam ne lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne bu ngeen di waxtaane gaa yu baax yi suñu boroom dafay wàcce yërmande kon fu nu koy waxtaane di jataay bii ak yeneen jataay yi ñu koy defal yépp jataay yërmande la jataay leer la yonent bi dafa waxoon ne fu ngeen rombatee toolub suñu boroom na ngeen dagg ca meññeef ma buñ ko laajee lan mooy toolub suñu boroom mu ne mooy jataay yi tudd yàlla jataay yi ñuy waxtaane lu baax mu doon lu am solo loo xam ne naka jekk dañ ko yàgg di fonk yàgg di ko def kilifa ga ñuy wax Cheikh Abdul Wahab Charani dëkkoon fii ci Égypte doon nit ku baax nitu yàlla dafa mas a wax ne ci jamono taalibe yi Cheikh Ahmadul Badawi dañoo dajaloo woon di defal Cheikh Ahmadul Badawi ak màggal nee na màggal ga maa ngi tabje ñàkk jot ba déwuma ca nee na sunu borom ci guddi goga mu won ma ay ngëneel wan ma ay leer wan ma ay may yu bari yo xamne ne nyak te ñàkk dem ci bir suñu amadou ba déwi ba momako xagn won wan ma nak ay nit ñu bax ño xamne ñi ngay dox jëm ci magal ga ñi ña nga war ñi ña ngay watatu ñi ña ngay ram ngir bëgg ak fekke bir ñu amadou ba déwi nga xamne kon bis bis yi di bisi nit yalla yi bis yu am solo la bis yu reey reey la boroom xam-xam yi dañuy wax ne man ar arraxa waliyan fa ka annama ahya nit ku baax saa yoo ko taarixalee saa yoo ko defalee bés dangaa mel ne danga ko dundalaat ku def lu baax ba jóge fi bis boo ko taxawalee ak bis mel nga ne ku ko dundalaat ah dundalaat nga ko waaye danga ko dundalaat ci xol yi kii nuy waxtaane tey di Cheikh du Fadiama mi ngi gane jamono ci atum 1849 ci Afe ca Saloum sunu boroom itam feeñal ko ci askan wu baax sunu boroom feeñal ko ci askan wu baax bu ngeen gisee ñuy sonn ngir xam askanu nit ku baax xam fu bokk ak ñuy ay bokkam day def ne feeñe fu baax day yombalum baax bokk fu baax day tax nit ki bu góorgóorloo ci mbaax ak mbaax yomb ko Muhammad ibnu Ishaq dafa wax ne sunu boroom day bi nga xamee ne naa Luut nee na la wan na lii bikum xuwatan awaawi ilaa ruknin shadid Seydina Luut dafa nekkoon ci dëkk yu wéet fa tumuranke fa amu fay mbokk amu fay doomi bàyyi amu fa kenn bi nekkee ci loolu ba waa dëkk ba ñëw not ko bëgg koo sonal dafa jàmbat dafa wax ne ak a neexoon ma am ay njaay wala ay mbokk yu ma jàppale tey jii keroog bi yonente yàlla lu jàmbatee loolu amul benn nit ku baax buy feeñaat lu dul ne suñu borom wutal na la askan wu baax moo tax askan wu baax lu am solo la lu mat a yittewoo la mu feeñ ci askan woo xam ne askan wu yàlla may la lool di askanu ñangeen di nit ñoo xam ne foo dégg lu baax ak fu mën a doon am nañ ca ab cër benn ñu doomi bàyyu ca baa ñu am ca gorolante baa ñu ca doomi ndey loolu leen yàlla defal nee nañu boo toppi seenu askan day dem ba ci Seydina Abubakar ni Siddiq Cheikh Modou Fadiama moom mu baayam ñu gën koo xam ci tafsir Bara Khoudia Niang mam baara xujja di mbokkum cheikhul xadim ci lépp ñu bokk ci ndey bokk ci baay ndax sëñ Tuuba soxna jaara ku soxna jaara mama sawaloo ku jur mama sawaloo ñetti doom la ñeenti doom laa amoon ñettu ñu jigéen ak kenn ku góor ñettu ñu jigéen ñi mooy soxna mati buso moo doon ab taawam soxna bu busoo soxna jaaratullaahi mooy am caatam ñoom ñooñu maama sawaalo leen jur maama sawaalo ku ñuy wax ndumbe sànqe ku jur ndumbe sànqe moomu mook faa sànqe mi jur gàdd mi jur mambaara xujja mi jur si madu fajama ñoo bokk ndey ak bàyyi wet googu mook sëriñ bi ay doom yi lay lañ ci waaye yaayam di soxna faajama ñang soxna faajama mbàkke faajama baati doomi sayeer soxna Bousso la di doomi mam maram wet googu sëñ Modou Fadiama day doon nijaay ci sëriñ bi ndax sëriñ bi doomi mam Mor Anta Sali mam Balla mam maram sëñ Modou Fadiama doomi Fadiama baati Mbàkke doomi sayeer soxna Bousso doomi mam maram wet googu sëñ Modou Fadiama day doon nijaay ci sëñ mag bi tafsir baara xujja moomu doonoon wëllëreewu sëñ Mor Anta Sali lool wax nañ ne bokkoon nañ fuñ doon jànge ca Bamba Mori ca Saalum moom moom am daje nañ fa ci am jàng yàlla dogaloon seenu kóllëre ñu doon ay wëllëre lool ba wax nañ ne bokkoon nañ ñoom ñaar benn néeg bu ñu daan fanaan moom mambaara xujje mi jur suñu mor faajama ak mamar anta sali mu jur sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mambaara xujje ni ma ko waxee woon léegi yàlla defal ko ak may mu doonoon ku am xam-xam lool rawatina xam-xamu diine ñu ko daa woowee tafsir tafsir ma ngi dañ daa wax tafsir daa wax moor bu ñu mësaan a wax moor mooy salma chita koo xam ne loolu dañ tontu kooku koo xam ne moom foo foo cuqee mu dem kooku dañ daa woowee moor ku àggoon nag ci jataayu xam-xam man di jàngalee ka yaatal ñooy lañ daa woowee tafsir tafsir baa la xujjee mu doonoon ko am taxawaay ci diine lool bokkoon ci jàmbaar yi maba jaxu yi ci taxawal lislaam yàlla dénkoon ko ak njaboot njaboot ga ñëpp duñu baax ndax ci ay soxnaam soxna mati buso mi taw mam a sawalo la denc am ca njóogu mati njóogu mati ñang ak malaamin mati ñang ginnaaw bi mu jël soxna faajama mbàkke am ci sëñ Moodu faajama mii doomam jooju di njóogumati moo jur suñ baara ñang mi jur suñ saddex ñang ñangeen googu féete gere noonu njóogumati moom ba tey moo jur soxna fat ñang mi mam ceen borom daaru dëkkee woon dëkkoo woon am ci suñu abdourahman mu jur suñ mbàkke daba saaru mii ñooñu foofu lañ bokkee waa kër ñang yi noonu itam soxna faajama mbàkke ñu gën koo xam ci faajama baat am na ñaar ñum bokkaloon ndey ak bàyyi kenn ki di bu Baty kenn ki di Aramine Baty Seynabou Baty moo jur suñ Modou Asta Mbacké mi jur euh, moo jur soxna Asta Mbacké mi jur suñ Mor Asta suñ Mor Asta Diatara moo jur suñ Mor Mbacké Pofdy di waa Pofdy noonu noonu la ñu bokkee ak waa kër ña ngi nga xam ne kon da ngay gis ne suñ Modou Fadiama aw askanam daanaka fépp fu lu baax ne rek ña nga ko comme ni ma ko waxee woon léegi bi mu gënee jamono moom si mu du faa jëm ci atum 1849 mu yaru ci loxol ay waajuram baayam moo ko yar moo ko yar tàggat ko jàngal ko alxuraanul karim bi mu ko jàngalee alxuraan jàngal ko xam-xam diir nag bi mu nekk ak baayam bu baax boobu mboolem ñi mu bokkal baay da caa gënoon a ràññeeku ci féet ak baayam nangul ko lool bëgg ko lool déggal ko lool nettali nañ ne dafa am bis boo xam ne tafsir baara xujja dafa amoonu naaru góor xam nga mag ñi dañoo fonkoon fas fas yi ca lañ daa xare daa ci tukki dafa woon naaru góor woo xam ne da ko daa toppatoo lool ba muy am kattan di ko man bi mu demee ba nga xam ne tële na mënatu ko fas wi ak càggante am ca ba mu xaw daal loof am bis mambaara xuj génn xool fas wi lu yàgg am ci lu ko metti lool bi suñ Modou Fadiama seetloo loolu dafa dal dem ci fas wa toppatoo ko taxawu ko defaraat gétt ga ba lépp set lépp baax bi kilifa gi génnee laaj ne waaw ku def lii ñu ko lii de sa doom ji Ahmadou Fadiama ko def mu woo ko sant ko gërëm ko danne ko àdduna dey bu desoon benn bis doonte ne benn bis lay des danañ la dégg ci bis booba ngeen gis nit kii bu taxawoo waajuram njëriñam ci jëlee Cheikh Abdoul Aziz daf daan wax ne nit bu fonkee ay waajuram ba am seen gërëm ñett daf koy topp nit ñi dañ koy bëgg àdduna da koy bëgg aljanna da koy bëgg dañu wax ne nit bu liggéeyee ay waajuram ba am ngërëmul waajuram yàlla da koy boole ñett yi nit ñi dañ koy bëgg te ko sañ bañ àdduna da koy bëgg yomb ko lool waaye àjjana da koy bëgg yomb ko lool foofu la jaar ak waajuram waajuram woowu nag bi mu nekkee moom ci jataay booba daf ko faa digal dane ko boo demee ëllëg ba gisatoo ma na nga dellu sa kër ndey sa kër ndey mooy ca sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mooy waa Mbàkke yi daal noonu la nekk ak moom ba wi mu dem ker simo Mor Anta Sali kër simo Mor Anta Sali itam ci ben gi am jangga ko fa yóbbu woon mu dem fa di jang Mor Sali am sax ñu wax ne sëñ Tuubaa yaakar nañ ne jangal nako yaakaar nañu suñ tubaa jàngal na ko waxuñu nag mën téye la ko jàng waaye am nañu yaakaar ne ndax suñ mbiram moo ko daa jàngale ca booba moo tax ñu bari am njortu ne sëriñ bi jàngalal na ko boppam mu wax moom si Modou Fadiama lu mu nett lii suñ galo mbay suñ galo nett ko si Modou Xari ma dégg ko ci nett ko si Modou Xari mu wax ne suñ tubaa dafa am ñaar yu ma daloon ci moom moom si Modou Fadiama nee na dama koo bëggoon ba pare yërëm ko yërmaande ji ma amoon ci moom mooy damaa gis ñi ko dar ci nit ñi li muy xëy di def ci jaamu yàlla di ko toggoo ci liggéeyal waajuram di ko toggoo ci njàngale mi nee na ma bëgg ko yërëm ko ànd ak moom ci ci loolu laataa wooteeb yoonu murit di ñëw foofu la nekk ak moom nekk ak si Mor Anta Sali di góorgóorlu ci lu baax di jàngale léeg-léeg itam mu génn dem yalwaani indi ci daara ji mag ñi daanañ def loolu dañuy toog ba mu yàgg ñu génn ab diir di yalwaa naka dajale ba amul lim indil ko si Mor Anta Sali loolu si ma saajama daana ko def si mënu ma sàmba jub sàmm daana ko def suñ tubaa nag mooy gënoon ràññeeku moom moo gënoon ràññeeku ci loolu dañuy nettali sax ci euh, diggante yooyu bis boo xam ne moom sëñ bi Mamoor Anta Sali da doon am gan maanaam daa am soxna suuf doon ñëw ci waa këram mu jaaxle ca lool ndax yëf yi da ko bett te lu mu ca def jaaxal na ko suñ tubaa ne ko dalalal sa xel bis bi danaa ci jëf neen daal di gaaw bind ak kaamil kaamil bu gaaw ñëw jox ko ko si ma ënsër ne ko ah, kaamil bi de baax na waaye njëg gi la nga lay tëwoo nee na da ko baax na joxaat ma ko kon si ma ënsëli joxaat ko ko mu ànd ak kaamil ba dem Saalum am góor goo gis ca Saalum ne ko sa kaamil bi rafet na waaye nag mën naa koo jëndi aw yëkk ndax bëgg nga yëkk wi mu ne ko ah waaw yëkk wi kay moom ëpp na ci sax bëgg naa ko lool góor gi ne ko danga ma ci warlul ñett la ci njëkk mooy naa am alal lool la ko ñaaral mooy naa gudd fan lool la ko ñetteel mooy su ma faatoo naa taabi àjjana suñu tubaab ne ko defal naa la ko ci buur ga jël kamil ba gàddul ko yëkk wa ba ak kasimaon seli nga xam ne keroog yëkk woo wa baax na lool ca daara ja keroog mag ñëpp dañoo amoon taxawaay ci biir kër Simon de Sali Simon Fadiam bi mu nekkee ci loolu ab biir ba ni fi si Mor ànd Sali jógee sëriñ bi bàyyi leen ca daara ja ñu ne fa ñoom mag ñoo ñooñee dem gànnaar dellusi ba mu dellusee nag ca la woote moom sëñ Tuubaa woote mburéy ba wax ne yonent bi dama dikkal ne ma yàlla xamal na la li nekkoon ci xol mbindéef yi bàyyil njàngalem kese mi te yëkkati yitti nit ñi bi mu waxee loolu daal ne nag képp koo xam ne kon njàngum kese dafa indi woon mën ngaa dem si wuti foo ko defee waaye kep ko xamne nak yoon wi mu bëgg jaar yoon wi mu bëgg jël fa nga bëgg fa nga bëgg jaar man nga des and ak man bi Sëñ Tuubaa waxe lolu ca la dara ja xaju bis boba fekk fa Sëñ Moodu Fajama amna ñu ne dafa yalwaani won comme nima ko waxe won legi amna ñu ne dedet dafa ànd na Sëñ Buso demone ke Sëñ Ngéeg Fall lolu tax wul jotaay kërëm ba bi jotaay boba amé ca saasa la adama dal di ba sar tegu ca sëñ Masamba Jóob Sàmm tegu ca sëñ Tuubaa noonu leen limi dafa wax ne awwalu man aamana bii wa baya ali ki ma njëkk a njëkk a jaayante wax ji wax ju am dafa wax ne ki ma njëkk a gëm te njëkk a jaayante ak man mooy Adama Gueye suñu Adama li njëkk a def nit ñi mooy jaayante gi waaye gëm gi ñëpp ji ma sewoon kenn mësu ko wedde te lu ko yàlla defaloon na wala sax am na ci benn xam-xam ñuy wax ne suñu aadama géey daa njëkk jébbalu ci mag ñi ndax kenn ba muy jébbalu moom ak sëñ Tuubaa waaye gone ya maam Cheikh Anta ci njëkk jébbalu jigéen ña ku ñu wax Penda Diop Penda mooy njëkk jébbalu ci sëñ Tuubaa ci jigéen si Modou Fadima jataay boobu fekk ko fa bi mu xëyee la ñëw bi mu ñëwee sëriñ bi waxtaan ak moom ci biir yi waxtaan ne ko ah yow day Ahmadou mbir dala fee wuutu sa si Modou Fadio ma laaj ko ne ko mbir moom moom lu doon mu ne ko ak njëbbal si Modou Fadio ma laajaat ko luy ak njëbbal sëriñ bi ne ko da ngay joxe fii sa bopp di diglu ndigal di ko jëfe tey bàyyi ay tere si Modou Fadio ma daal ne ko ah loolu de mbàkkee nu ma koy defee ci ginnaaw doomi soxna ni man dana ma jaaxal ndax man boole naa ñett yi xaafisul quraan laa ku wattu alxuraan laa alimu kulli fannin laa damaa pekk mboolem fànni xam-xam yi la ko ñetteel mooy bu malaayika yi déewante ca seen pay ya damay digg la ñuy wax lu may jëbbaloo dana ma jaaxal suñu mënu faa jëm bi mu nett loolu dafa wax ne suñ Tuubaa tontuwuma ci ñaari njëkk yi waaye ci mujj bi dama tontu ndax dañu ma waaw dégg ndéel malaayika yi day baax na waaye nag bu ñuy déewante ne xaar ñu woo diw laa gën a kawe nee na bi ma suñu waxee loolu sama xol bi dañu rësët mu ne ko waaw nangu naa kon jëbbalu naa nee na bi julli jotee ci ni ko si mën xarit nettalee nee na damaa dem jàppu ji ñëwal dal si jaare gi daal ñëw ci buntu néeg bi nag mel ne kuy soññee daan ko siñ bi waxtu jot na sëñ bi daal li sëñ bi daal di génn bi mu génnee dafa daal di fëgg bopp bi ne ko doxal nga jiite sëñ Moodu nee na ma taxaw taxaw taxaw mutuma jàng fatiha nee na ma taxaw taxaw taxaw la ma xamoon lépp réer ma alxuraan jàkk aalima kulli fannin jàkk lépp dem na fii mu ne <laughs> nee na ma ne ko dëgg dëgg de yaay mbërum yàlla mi ndax man xam naa lii nga ma def mbërum yàlla rek a ko mën ci man sëñ bi xëcc ko daal di dox moom daal di jiite julli biñ jullee ba noppi si mënu fajam daal di lemb si jaada gi nee na keroog laa noppee soññee keroog laa tàmbali daal fu waxtu julli jotee damay ñëw rek daal si jaada gi su ma noppee daal di dellusiwaat ci ginnaaw noonu la nekk sëriñ bi ci ak tarbiye ci njëlbéenu ko woote bi yoonu murit nag ci ñi njëkk a jaayanteeg sëñ Tuubaa ca la bokk sëriñ bi ka njëkk a jébbalu ci moom ko waxee woon léegi mooy sëñ Jibra Saar Njaañ Masamba Jóob Saam sëñ Daam Abdourahman Lo sëñ Daaru Asan Njaay sëñ Moodu Géey Jambooy sëñ Mandumbe sëñ Moodu Faajama sëñ sax Njaay takkar sëñ Mbàkke Buso fukk yi ñoo njëkk jaay ndeg sëñ Tuubaa mu bokk ci ña nga xam ne jamono bi gouverneur joxe ndigal ne nañ génn murit yi kër yiñ ne te delloo leen ca seen dëkk ba di Touba murid yi ñu daan sonal daan leen dóor daan leen mettital moom mii ca ñooñu la bokkoon ku sonn la ci ànd gi ma ànd ak Sëñ Tuubaa sonn na ci lool daj na ci ab coono lool itam nettali nañ ne am na bis boo xam ne sëñ si ma ko nettali nekk na ci biir kër sëriñ bi di bale lenn ci ay bokkam fekk ko fa di ko xas di ko xas di ko xas ba xaw koo sonal wax nañ ne keroog dañoo foqarti mum bi mu sonal dañu ko summi def ko yaramu nen mu wëlbatiku moom suñu du fajama dem ci sëñ Tuubaa sëñ bi ne ko bu ëllëgee danaa la jox mbubb foo xam ne mbubb jafe na fa lool dañ ne ko nag wéyal ci sab liggéey bu ël buñ demee ba ca kanam danaa def ci yow loo xam ne sax foogoo ko woon loolu sëñ bi wax keroog mu nekk ak moom ba ni bi bàyyi ko Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawal ñëw Daaru Salaam mu bokkoon ci ñu doon gor Daaru Salaam ne ne fa sëriñ bi bàyyee dem tuubaa bokkoon na moom si Modou Fadiama ci ñu gor Touba bi nga xamee nag sëriñ bi sanc na Touba ba noppi la woo mag ñu bari di leen yawee waaye diir booba liggéey bu ñu liggéey la ko sëriñ Touba daana bale daana root am root ci moom moom la mujj defal sëriñ Touba sax nag moom root bi mi ngi ko daa defee fii ci gaar bi bi sëriñ bi sanc Touba mi ngi daa rootee fii ci gar bi di ko yóbbul sëriñ bi ca ci jumaa ji foofu këram gi ne woon noonee nekk na ci ab diir keroog bi ko ku baax ki di yewi nee na bagaan bi ma daa roote dama ko tànk ba mu fees dell ak ndox bi ma ko wuy ne jëbit yëkkati dafa rët samay loxo daal di tuur daal di toj te musa daanu nee na bi ma taxawee jaaxale ci lool di ci xalaat laa gis ndaw lu bàyyi ko ca kër sëñ Tuubaa ñëw di ma woo ne ma kay wuy sëñ bi nee bi ma ñëwee sëriñ bi bi ma ñëwee ba nuyu ko ne daf maa jox loxo bi ma joxee loxo dafa maa róofu dama dafa jël loxoom bi róof ko ci sama mbagg mi nii dal di jug ak man toogaat nee na bi Sëriñ Tuubaa di toogaat yëg naa ne alxuraan ji ñëw na alxuraan ja ma ñàkkoon yëg naa ne ñëwaat na fi mu ne yëg naa ne xam-xam ya ma ñàkkoon itam ba tey ñëw na nee na bi sëriñ bi toogee itam ci jataay bi maa ngi dégg malaayika yi ña ngay wax naan lii ñuy wax kat dañ bàyyi ba ahmadu fajame mais noppi ñu doog àggal lii ñuy wax nee na keroog la ko sëñ bi ne sant naa la gërëm naa la daan ne ko nag boo jógee fii na nga xool fu say tànk gën a nangu nga jubali foofa bi mu jógee tuubaa jaar wetu Kajoor bi mu nekkee Kajoor yàlla ubbi ko fa lool mu nekk fa ab diir ginnaaw bi la ñibbisi ci sëñ bi siyaar si ko suñu ko ne ko waaw bi nga jógee fii foo dem si munu faa ma ne ko bi ma jógee fii ci yaw day dem naa kajoor suñ bi ne ko waaw kajoor nag daa fekk ma sàkkal fa aw nit ba ne fa la ñuy séddoo koy joxoñ ab bidiw ne ko waaw bidiw bee fu mu tiim suñu mën faa ne ko ma ne ko biddiw bee day Saalum la tiim nee sëriñ bi ne ko bu ëllëgee gépp ruu gu fay bàyyi ko jotaab bi àjjana yow mii laa koy laaj demal Saalum mu wëlbatiku ca jataay booba dem Saalum bu màggee Saalum doon fa rek jant bu jant bu fenk ci leer ci ak may ci ñaan gu nangu ñaan goo xam ne kenn mësa gis ñaan gu ni mel ku taxoo moom ab diir sab xol laab set nga xam yàlla di yëg yàlla tax mbooloo mépp di fàq di ànd ak moom mu doon nit ku neex a àndal nag ku tabe ku gaaw ci defar nit ku gaaw ci faj aajooy nit loolu ko yàlla defaloon ci Saloum mu nekk fa ab diir di seexale di defar di seexale di defar ba ci ko ati 1895 la ko sëriñ bi woolu jox ko leneen ndigal moom sëñ Tuubaa ndigal la mooy daf ko wax ne ko ñëwal nga dem dellu Touba boo demee nga sañ ci fa tolloog sama bopp digal Sëriñ Mbàkke Buso ne ko boo demee na nga sañci fa tolloog sama tànk daane ko nag na nga def sa dëkk bi foo xam ne jumaa jamay defarlu Touba bu noppee ku farlu da fa man di bàyyi ko di fekk si julli gi ci atum 1895 googu laataa sëñ bi dem ci géej gi ci lay ñëw kër ñang gii sanc ko tëbu tëb ñëw kër ñang mi ngi njëkk a sanc fële ca buntub dëkk bi rek fa mu tuddee woon Tawfeex ca wetu Sonatel ba gannaaw bi la jógee foofa ñëw fii ci wetu mbal ba mu fa nekkee ab diir la ne fii day dafa jege sëriñ bi jóge fa ñëw fii ci gaar bi bi mu sancee ci gaar bi ab diir daal di wax ne ah fii day bu ëllëgee dana am jaan ju ñuul kukk ju yuuxu ju fiy jaar yoonu jàmbur la te ku fi toog da nga jóg daane da du toog fenn fu may jóge daal di bàyyi ko foofu ca gaar ba ñëw sanc fii ba mu fii ne fi di fi jaamu yàlla di wër nag ci biir dëkk yi tàmbali itam moom suñu Modou Fadiama di liggéeyal Sëñ Tuubaa beneen xeetu liggéey beneen xeetu liggéey ci di tarbiyaa di defar aw nit di defar mbolo Sëñ Tuubaa it def ci mom lu kiimaane lol la ko Sëñ Tuubaa ne woon buñ démé ba ci kanam dana def ci yow lo xamné fogo ko won tambalé fën ci mom ndax dañu sétlu ne ni sëriñ bi di défaré aw nit di len seexal di faj seen ajo moom mii noonu la koy défé mom sax ci bopam dana wax ne mom suñu fayam dana wax ne raxas ndab bam set duy ko bam fess aku ñam ñaara ko man ci yoon wi ñaara ko man ci yoon mooy Sëñ Tuubaa ak man mii te Sëñ Tuubaa moo ko defal loolu wax daa wax ne defar nit boole koo ki may Sëñ Tuubaa ko man ci yoon wi ak sama jëmbu ji te Sëñ Tuubaa moo ko defal loolu daa wax doonoon ku yàlla may mu tàmbali nag di seexal ay nit seexal mooy lan Sëñ Tuubaa fii woon na ak seex nee woon na seex mooy seexlu lu bon boo xasee seexlu lu bon kenn gënatu laa seex loolu Sëñ Tuubaa waxoon Sëñ Tuubaa nee woon na seexal mooy seexlu lu bon boo xasee seexlu lu bon kenn gënatu laa seex seexal na nit mooy lan mooy defar na ab xolam ba bëggatu dara àdduna defar na ay cëram ba nooy népp ci jaamu yàlla ba ku ko gis nag léegi sopp ko nangoo ànd ak moom nangoo toppatu nangoo wommatu ci ginnaawam noonu daa def def ci nit ñi moom si defar mbooloo mu bari bi ñu wàññee limub ay seexam mat na juróom-ñett fukki seex ak ñeent waaye ñooñee itam la Sëriñ Modou Fadiama def ci ñoom ñu wëlbati ko defaat ko yeneen nit ba bi ñu wàññee ay seexam moom Sëriñ Modou Fadiama mën na téeméeri sax mu doon jàmbaar lool yor ay jikko yu rafet yor ay jikko yu kawe doonoon nag murit maanaam murit bu muritee Ibra Fall ñoom dafa muritee woon murit murit bu sës rikk la woon ci ak murit daanaka mën ngaa wax ne ab daanukat la woon sax loolu am na ay firnde yu bari suñu si dama nettali ne suñu Fallu dafa wax ne suñu Moodu Faajama de ñaar yii kenn na fekk ko ci ñaaree mooy lan lan nee na suñu Fallu nee na suñu Moodu Faajama tur wi mu daa woowee Sëñ Tuubaa kenn fekk ko ci mbërum yàlla mi la ko daa woowee waaye nee na suñu Modou Fadiama ma ab jataayam ci kanamu sëñ Touba ni mu daan toogee ci kanamu sëñ bi nee na kenn fekk ko ci nee na mësaan sëñ bi day bank tànk yi daal di jël sikkim bi teg ko ci suuf noonu laa toogee ci kanamu sëñ bi murit bu murite la woon lool suñ baa dama nettali ne ma suñ Modou xëree ko wax ci làmmiñam ne ko suñ Modou Moustapha moom wax ci làmmiñam ne ko sa bàyyi si Modou Fadja ma de xamoon naa ko ku baax la woon xamoon naa ko waaye keroog bi ma Sëñ Tuubaa di dénk laa ko gën a xam sa bàyyi si Modou Fadja ma xamoon naa ko de waaye keroog bi Sëñ Tuubaa di tàggatoo ak man di ma dénk laa ko a ndax ne Sëñ Tuubaa ma li ma bëgg mooy nga def ni Ahmadou Fadja ma ndax moom de lépp lu ma ko dégaloon def na ko nee na keroog loolu la sëriñ bi seede ci moom mu murit la woon saa saadex la woon nett nañ ma léegi ne ci archives France yi bi nga xamee ne indi nañ sëriñ bi Touba ba Touba bi dogu ci dañ ko war a yóbbu Madagascar xam nga loolu lañ naroon dañoo programmé woon yóbbu ko Madagascar am ay murit yu bari nag yu taxaw ne suñ Touba du dem baa kon buy dem seen bakkan day wadd ba noppi suñ bi dem Touba bi ci seeni agent secret bi ñu def seeni gëstu gis nañ ne dañoo wàññi lu mat ñeent fukki nit dañoo wàññi ñeent fukki nit yi nga xam ñu ñoo gënoon taxaw temm na señtu war dem ci bu dem Madagascar ñeent fukki nit yoya boole nañ ci Sëriñ Modou fay biir ñeent fukki ye ñu seggaat ca batay ñu seggaat ñaar fukki nit yooyu nga xamne ne ñoo gënoon taxaw temm ne señ bi mom dañuy dañuy dé rek way Sëriñ Tuubaa dem ñaar fukki yooya Sëriñ Modou Fadel ma ci la bok waaye ñuy seggaat di ségg ba am ñet nit na ñet ñi mom ñoo gëna dëgër ci liñ ne ñet ñooña ba tey boole nañ ci Sëriñ Modou Fadel ma ku jeex tàkk ci Sëriñ Tuubaa la woon murit la woon murit saadex la woon ku mën a woon addiye la woon doonoon koo xam ne léppam Sëriñ Tuubaa la daa déglu ba ci doomam ji si Modou Khary Niang bi mu juddoo tudd ko juróom-ñaari fan déedéet dafa waajal ay addiye yónnee ko gànnaar ne nañ dem ba gànnaar laajal ma Sëriñ Tuubaa ndigal ci aw tur ma doo ko tudd nga xam ne ndaw la bàyyi ko fii di dox ak dugg di dox ak a dugg ba àgg Mauritanie jëluwu tur di dox ak dugg di dox ak ko dugg ba egg si Tuubaa ñu doog koo tudd lépp suñu Tuubaa la jiitaloon waaye doonoon ci biir yoonu murit doonoon ci ndey ji seex taxawaay boobu la amoon ci biir yoonu murit yaatu dënn fu ne lu baaxam am ne fa fu ne lu baax am ne fa fii joxe na fa ay doomam fii mu jël fa soxna ci diggante bokk yi mu bokkal sëñ Tuubaa nga tàmbalee ko ca Mamoor Jaara boroom Saam léppam la woon xaritam la woon nitam la woon Mamoor Jaara dafa ñëw fii fi kër ñang daan ne ko diw sàngam mii dey laa bëgg a jël ci sa mu doom si mut moom laa bëgg a jël may ko Cheikh Mbacke sama doom si sa xas sa wàllu si mut fajama ne ko ah kooku de da fekk ma waxal ci sama jarbaat ba tukki na ngir wuti lu mu ca def waaye yow nag ni nga toll ci sëñ Touba xool wax ji ni mu rëy ni nga toll ci sëñ Touba doo ñëw mukk fii ci sama kër gi bëgg fi dara ma di ko ma di ko gàllankoor waaye ni nga def mooy fanaanal ci sama néegu bopp bii rek sama néegu bopp bii ngay fanaan laajal sa borom kum la jox ci diggante diw mii ak faajama mii ma jox la kooka bi suñ Mor Jaara xëyee ne ko suñu borom nee na nga jox ma faajama ñang mii mu jox ko suñu saxal sawalo mu am ci suñu bàkke fajima suñu bàkke fajima mbaax moom nga xam ne leeru suñu fajima feeñoon na ci moom ku mënoon alxuraan la ku amoon jàmm la ku yaatu woon la itam noonu la demee woon ak Maamor Jaara waaye noonu itam la demee woon ak suñu aafe suñu aafe mu bokk moom Cheikh Anta nday ak sax ba tey denc na doomi suñu fajima soxna mbenn ñang suñu aafe am na ca doom ñu ko daa wax soxna alimatu aafe soxna alimatu Mbàkke doomi suñu fajima ko jur waaye diggante ba boroom daaru rattax gi dafa rattaxoon lool diggante bu neex la woon diggante bu rafet la woon wax naa ko njëlbéenu waxtaan wi borom daaru dëkkoo woon na jarbaatu si Modou Fadiama kañ daan wax soxna Fat Ñang bëri na fii turandoo ñanga ñanga goo dégg kër ñang soxna Fat Ñang moom moo lañ ko tuddee boroom daaroo ko yoroon ba am na ci sëñ Abdou Rahman mu jur suñu Mbàkke Fadiama mi suñu Mbàkke Daba Sarr mi ma wax léegi digganteem ak suñ euh, maam Thierno noonu la meloon. diggante ak maam Cheikh dama ko jëlale waaye diggante mag suñ Mbàkke Buso suñ Modou Fadio mag suñ Mbàkke Buso benn lañu woon ndax xam ngeen ne suñ Modou Fadio ci boppam moo yoroon moo yoroon rakki suñ Mbàkke Buso ji mbokkal ndey ak baay rakki suñ Mbàkke Buso ji mbokkal ndey ak baay soxna xari Buso soxna xari Balla xari mi soxna Awa Balla Mbàkke jur mu jokko mu bokk si Mbàkke bu sant ndey ak bàyyi si Modou Fadi maa ko yoroon ba njaboot na ginnaaw njógumati ginnaaw bi fi njógumati jógee ma suñ Mbàkke ëpp na loolu si Modou Fadi ma tuddee na suñ Mbàkke bu sa doom bay gis ngeen ne moom biir mbokk gi amu woon frontière ci bëri waa suñu tubaay waaye suñ Masamba Kandi Bousso ba tey Masamba Aminta Kan soxna fàtte Kan nekk soxna Amin Kan mi seen bu xaadir ñoom ñun ñoo bokk sëñ Masamba Kan bindaloon na ko sax ab kaamil jox ko kaamil booba mooy kaamil bi xalifa si Madu Faaja May di dondante laaj naa ko suñ baara mu ne ma mi ngi fii sama armoire bi sëñ Masamba Kan Buso moo ko ko bindaloon dëkkoo woon na sax doomi si Madu Faaja ma nga xam ne kon da gis ne mag ñu mag ñu baax ñi ñëpp a xàmmee moom si Madu Faaja ma ngir bëgg jaxasoo moom euh, maanaam mbokki boppam yi ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege ci bokk mbokki boppam yi nga xam ne ñoo ko gënoon jege ci bokk ay jarbaatam ay taalubeem taxawaay bu mel noonu la amoon ci ñoom dama ci tudd kenn si Mor Mor Atta Ñang moo yoroon soxna Ndumbe Ñang mi jur yaa màggat Ñang mi am mi jur xarit bu soog seen raj màggat Mor Atta moomu ab jarbaatam la woon si Modou Fadiama ci wetam la ko tegoon Baye Ndiaga Ñang mi jur suñu Cheikh Ndiob ak suñu doom yi boppam la yëkkati woon jox ko mu bokkoon ci mag ñi ko gënoon a jege noonu la meloon ak aw nitam waaye biir yoon wi maanaam talibe yi magi talibe yi jaxasoo bu rafet la amoon ak ñoom dama ko tàmbali ci Cheikh Ibra si si dama nettali ne ma Cheikh Ibra daje naag si Moodu ma foofu ca njaareem nee na bi ñu dajee Cheikh Ibra ne ko ah waaw Ahmadou Faajama xam nga ma xam nga ma Amadou Fadji ma xam nga ma nee na ma ne ko ah Fall xaw ma la de xaw ma la de Fall waaye nag daal tibb suuf tibb suuf ne ko yow de yaay lii jaay suuf yaa soppi ñëpp te kenn mën laa soppi. chef bu ne daal di gaaw daal di rëcc ko dem noonu lañ meloon ñoom ñaar waaye si ndam Abdourahmane Lo si Modou Fadji moom dafa moog si ndam dañoo jaxasoo woon lool bëggante. si mënu faa jëma tuddee na suñ ndaam tuddee na ko doom tuddee na ko doom dafa doom ji dafa dundut waaye waxoon na sax ne su ma fi jógee bu ma kenn tiim képp ku tiim sama yaram ku dul suñu bàkki bu suñu Abdourahmane Lo lu la fekk yaa sa bopp la tegul suñu doonoon koo xam ne ci biir yoonu murit ni ma ko waxee woon léegi ndey ji seex la fi woon manoon defar manoon lu baax doonoon ku xam addiye fu mu fum tollu toll moom si ay ndawam ay adiyam ma ngay dem ndiarem ma ngay dem gannar ma ngay dem ci yeen jolof Amna yon yoon woo xam ne moom dafa bayiko fi fi Touba dem ndiarem di siyaare yi Sëñ Touba bim ko siara ba deppu daldi jaar ngabu ci ronu garab wàcc bo mi ngi mi ngi waron ab carotte xam ngeen carotte carotte lu mel ni xeetu watiir la yu mag ngi daa war moom lay rontal mi dem njariñ bi mu dëppee wàcc yi yeewu fas wi toog di noppalu am ndaw la ko fekk toppatoo ko may ko mu naan dimbali ko ah si mu du fa ñam bi bi nekkee ci loolu ba noppi ne ko yow yaay kan mu ne ko ah, man de ndongal tërbiyee laa luy tërbiyewu fii ci ngaabu si mu ne ko a mu fa ne ko sa tërbiyee jeexagul nee na ndaw la ne ko déedéet mu ne ko waaye jege si lu mu faj sa aajo jege si lu mu faj sa aajo daal di koy jox loxo ne ko tey jii sa aajo mu tàqalikoog moom ba egg si la sëñ Touba di yónnee ne nañ ma wal diw sàngam ca ngaabu biñ ko wuyisee sëñ bi ne ko tey day yàlla bëgg na ci yow yonent bi bëgg na ci yow man mii bëgg naa ci yow waaye nag boo jógee fii na nga dem kër ñi ki sëñ Modou Fadiama waaye mu doonoon moom sëñ Modou Fadiama ku tabe dafa suñu Moussa bi dafa tabe woon ku tabe la woon wax nañ ne ay sàq la daa maye ci bi muy bi muy man ay sàq la daa jël di ko joxe ku tabe la woon ak tabam firnde la ci dafa am bis boo xam ne dafa yeba dafa yefal aw naaru góor ba naaru góor wa mel na mu war a mel mu woo ku ñuy wax Abdoulaye Jàmme ak Modou Cissé ne leen jël leen fas fasu naaru góor wi ngeen yotul ma ko Sëñ Tuubaa ca njaareem bi ñu demee ñoom ñaar yóbbul suñ bi fas wi sëñ bi xool fas wi daan fas wi day bëgg naa ci na ma santal sëñ Moodu Fajama nee na bi ma waaye bu ngeen demee nee leen ko bu ngeen demee nee leen ko fas wi na ma ko weccekul defal ma ko jox ma njëg gi ndax njëg gi laa gën a teewoo nee na si Modou Fadiama bi ñu indiwaat bi ñu la ko indilaatee fas wi moom si Modou Fadiama dafa ne waaw ana Morata Morata ñang nee na ma ne ko maa ngi nii mu ne ko xaymaal ma fas wi lu fas wi war a jàpp ah suñu Morata ko waaw fas wi day mën naa am nangam nee na si Modou Fadiama ne ma ne ko tegal ma ci lu ñu toll nee ma tag ca lu ñu toll mooy jël leen njëg gi ñu yóbbul ko suñu tubaab ci njaareem keroog bi mu ko yóbbalee sëñ bi sëñ bi dafa bég ci moom lool ba ne ko bis ni ko tey wàcce naa la ci lépp ba des nga di ma ñaanal foofu lu ko waxee wax bis ni tey wàcce naa la ci lépp des nga di da koo bind sax da ko ndax bi ñëwee wax ko dafa wax ndaw yee ngeen dem leen jox sëñ Tuubaa ne ko na ko bind sëriñ bi bind ko ci këyit mu joxaat ko ko bi mu ñëwee da koo taf ci bunt bi ni lii kat mooy sama médaille ci mbërum yàlla mi ku yéeme loon si mun fajama ku mënoon a jox àddiyee la ku tabele woon waaye ku dëggu woon itam nag si mun fajama dafa dëggu woon amut amut dara ci jaxan fu mu mas fu dëgg mas a taxawee fu mu dëgg mas a taxawee fu mu war a waxe ni dëgg wàcc na mu dal dawul far kenn ci jaxan dañuy nettali yoon woo xam ne dafa jëmoon Saalum ginnaaw bi ay ngàllankoor am ca ba jot a àgg fa mu doon jëm bi mu dëppee ànd ak mbooloo mu bari am benn waay bu taxaw ci ab teen di ko woo bi mu ko woowee ah Cheikh Amadou Fadiama ba si Amadou Fadiama wuyu ko mu ne ko dama la bëgg si Amadou Fadiama ne ko yow di bëgguma la bi mu doxee ab diir ñu laaj ko ne ko ah waaw kii neen da bëgg nga ne ko bëgguma la si Amadou Fadiama ne kooku taxaw ci teen bi di ma woo kooku seytaane la bëgg na mu waaye bëgguma ko loolu dañ ki xamee ne dara ci caaxaan nekkuloon ci moom waaye ci biir histoire moom si Modou ma boo jàngat histoire am ciy gis ne da ciy gis ne nit la woon ku neex a jëflanteel da nga ciy gis da gis ne la koo xam ne loo ko defal lu mu tuuti tuuti rek day rëy ci moom ni mu daa gaaw a seexale ni muy gaaw a seexale nit loolu firnde la ci maanaam dafa dafa dafa xam teraanga dafa dafa dafa dafa tabe nit ko tabe noonu la mel nit ko tabe loo ko defal lu mu tuuti rek day réy ci moom loolu jikko la woon ci jikko si Modou Fadiama waaye jëmm la woon joo xam ne moom si Modou Fadiama amul woon frontière ci lislaam nit la koo xam ne dadaa dundal yoon wi waaye dawul dundee yoon wi jëmm la woon joo xam ne ay njariñam ay murit ak i tiijaan ak leneen ñoo yemoon ci njariñam fu mu mës a jëfe rek jëf ja ñëpp ba ciy bokk jariñoo firnde la ci teen bi mo gasoon fi ci Kër Ñang ta boba Touba soxna ko lol ndox manki fi lol mo gas fi ab teen teen ba diir bi mu koy gas gas nako ko bu yag yalla def ci man ndax man nga moy bi doom juddo sun dekk aw balla bis bis suñu dëkk aw balla juddu wax nañ ci la teen ba bënn wax nañ ne sax ci la ci boba ci lañ bay sëriñ dekk nga xamne kon njariñam nonu la meloon do doonoon itam nit ko xamne nit ku neexa a la seigne touba bi mu wacce seigne ñëwal jom yi fi la ko yabal ci seigne modou fadjama lolou wax seigne ñëwal jom machanr yi dañ ma ko nettali man nettali lañ ma ay yoon digënté seigne ñëwal jom yi ak seigne modou fadjama ba sédé sou reuy si Sëñ Ibra job def ci mom bindi ci mom fukki beuy fukki beuy di da koo tënkee ahmadou faajama ñang ahmadou faajama ñang fukki araf la mu def ci moom fukki bayit niamal imamu imamul muslimina maan ahmadou faajama man kadam si xas al aalimu l aamilu l aali maratibuhu nuurul muridina man adxa wazara fatan fadailuhu laa yantahi abadan bal axjalat fikra man qaraama an xasara kam min muridin qadaa fawran xawaijahu فسار بدرا منيرا يرسل السمراء قد فاق جملة أولاد الفتى مارم خير الخديم الذي أهل العلا بعرا أهل العلا بهرا إذا خد الله من يرضى يفس برضا أو لا يمد بلزا لقيز فذاك جرى لا لا يجاريه في سالم ولا بول ولا كجور ولي فضله اشتهر أدام رب البرايا عمره وكسى عنه وكفى عنه المسائب والأسواء والكدراء وتمم الله في أهله مقصده وساده كل يوم دائما بشرى لازم لازم لما شعري وقت سامو دفاع جماعة مي سيد سوري وقت النعم الإمام إمام المسلمين معا نعم الإمام سانغ بيدي أم المرم كيف هو باخني كيدي إمام المسلمين معا جديد يبلغ في نكال sang bi day amul morom ki day julit yep la fi nekkal ahmadou fadiama man ka samsixa zahara nit la ko xamne dafa mel ab jant seigne modou fadiama seigne ibra nee da daa ab jant ci lan ci lu mel ab jant jëmb la jo xamne ne amul frontière njariñul jant amul frontière jëmm la jo xam da mel ab jant ci lan ci njariñam ay noonam ak i soppeem ñoo te bokk yam ab jant ku ko bañ ak ku ko bëgg bokk yam ci njëriñam saa yu a na ci njëriñam waaye jëmb la joo xam ne daa mel ni ab jant ba tey ci lan ci may gim lay may tey du yàq dara la ci may gim lay may suba soo ko mayee bu la tey boo ko ñaani suba bu ma yàlla mu ab jant njëriñ li muy joxe tey du yàq dara ci njëriñ li muy joxe bu subaa waaye dafa mel ni ab jant ndax dafa amee leeru yàlla xam nga alxuraan dafa wax ne huwa allazi jaala shamsa diyaan wal xamara nuuran dafa wax ne weer wi mi ngi jëlee leer ci jant bi borom xam ne astronome lu ñu wax lu ñu wax ne weer jant bi moo ko jox leer bis bu set daf ko jox valeuru soixante soixante douze heures la ko jox su fenkee maam weer wi boo amee fen benn fan jant bee ko jox bu subaa mu joxaat ko lu ñu toll nga xam ne mbooleem leer yi ci àdduna bi mi ngi bàyyi ko ci leeru leeru jant bi manam dimbu la jo xamne amna leeru yàlla gu ne ci mom goo xamne kep képp ku yàlla taxajuk bo exé ci mom mu duyel la ak leer ba nga fessel del lolu si sédé ci mom suñ tuba ne na yahwi dhiya'an ka daw'i ishamsi xay sunaha yahza biha kullu shakhsin si nena al na al aalimu al ali maratibuhu borom xam-xam la ku jëfe mom la borom xam-xam la du borom xam-xam cookat de dedet borom xam-xam la bo xam lu mu def ci xam-xam la ko tek borom xam-xam la bo xam ne ragal yàlla moy jëfe xam-xam moko may xam-xam bobé bi mu bolé nak ñaar yoyu di borom xam-xam buy jaamu yàlla ci xam-xamam lolo ko may aali maratibuhu ay martabam kawe mu don ko ay martaba nurul murid ma daxalahum wasara mu don ko xamne murid yëpp senuk leer la jëmm la jo xamne day léral murid yi di len dimbali do nitam itam sen wëru waye mu wax ci mom wax ju rëy xat faaxa jumlata fatamaram fata al khadim alladhi alladi al ula bahara kum bokal maram day mo ne féete kaw ba mu des Sëñ mi nga xane gaay yu bax yi borom daraja yi yéemu nañ ci mom daañ ne lolu nak def dafa sunu borom yàlla def lolu te lu yàlla def nak ku ko gërëm bokku ca waye ku ko weddi itam dal li torox rek torox mooy dañuy wax ne yàlla bu rëddee nga far mu rëddaat nga far dalay far yow ba noppi doog rëdd bu yàlla rëddee nga ne du fi amee mu rëddaat nga ne du fi amee yow moom dalay far ba noppi doog a def lu muy def lii ñu wax ci moom lii la yàlla lii lii lii la yàlloo noonu mooy ay melokaanam mu doon tam ku bëgg alxuraan nag su mu dafa ñamaan ku bëgg alxuraan la woon bëgg alxuraan gi yaa ngi koy xamee ci ni mu bëggee si ndam Rahmaan la woon loolu foofu nga koy xamee suñ daam ginnaaw ak murit alxuraan la ko mag ñëpp bëggee woon noonu mu noonu mu meloon ci suñ daam ba ne na ma toppatoo na ma taxaw dañ ci xamee ak bëggam alxuraan suñ daam sax moo jàngalu njabootam moo jàngal si ma antañ ak ñoom ak njabootam bi daal ñëpp ci ñoom moo leen jàngal mu doonoon koo xam ne ci tënk lu baax rek la fi nekke woon mu doonoon koo xam ne ci tënk jaamu yàlla rek la fi nekke woon mu doonoon koo xam ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa la fi nekkee woon li ma wax lu mu bari bari Sëñ Tuubaa ngay xam ne Sëñ Tuubaa ci boppam moo yéeme yéemeeg Sëñ Tuubaa ci boppam tegtal la ci yéemeeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yéemeeg Sëñ Moodu Faajama tegtal la ci yéemeeg Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul Sëñ Tuubaa ci boppam moo yéeme moom la kenn xamul lu mu doon moom la kenn xamul lu mu doon kenn xamul lu mu doon man talqa minhum taqul laa xaytu sayyidahum borom xam-xam ba nee na ko ñi Sëñ Tuubaa yar koo ca jonjool koo ca gis ne kii mooy seen njiit ñëppam noonu la mel si Modou Fadiama jaamu yàlla rek doo doon mbiram ak faj aajoy taalibe yi ñaar yooyu doon yitteem ak taxawu jullit ñi ak ak lum laaj nag taxawu gi muy taxawu nit ñi su aajowoo dooleem dooleem dem na su aajowoo alalam alalam joxe na ko mooy ten bi mu fi gasoon waaye bu aajowoo baatinam itam ba tey mu jëfandikoo digganteem boroom lam ca am loolu firnde la suñu baara damaa nettali ne ma bàyyi njagañang da ko nettali ne ko suñ Modou Faa Jëmma dafa am bis ñuy julleendoo ak moom fii ci péncam mii waxtu timis nee na bi ñu jullee ci biir rukkoo bi muy siggi dafa delloowaat kaala gi nee bi muy delloo kaala gi kaala gi dafa ànd kum ndox ba ndox mi dal li mboolem ci sappe si nee bi mu jullee ba noppi ñu laaj ko ne ko waaw ñun kat dañoo am lu ñu jaaxal ñeng mu ne ah lu mu doon mu ne man de dañoo gis ne bi ngay julli daal bay siggi kaala gi bi nga koy delloowaat am ndox dañoo dal ñun ñëpp mu daan ah loola day sama taalibe bu ñuy wax Ablaye Wilane ca Gàmbi moo doon bëgg lab ca dexu Gàmbi ga moom laa doon xettali ndox moom moo leen tis noonu nettali nañ ne am na ci bis boo xam ne ci kër këram dafa jàppoon am ci néeg bi luy bëgg a lakk kenn ci ay soxnaam soxna Awa Balla Diop daal di ne ah waaw daal yuuxu daal góor wàllu bi si ma Fadima dégg bat boobu dafa daal di génn si jaaree gi bi mu la daal di sóobub taw ci ndox ma alaaji njuga jëng bi xew-xew boobu amee mu yéemu lool ba wuti si Modou Fadima ruufu ko bëgg ko yëkkati bi mu ko songee yëkkati yëkkati mënut a dem si Modou Fadima ne ko waa ji njóogu at ndooma nag soo ma at noonu du ngeen fi dajee <laughs> atuna ma noonu la meloon nit ku baax la woon nit ku tabe la woon jaamukatu yàlla la woon lislaam la fi bàyyi ak bi rekk la fi bàyyi mag ñi lu ñu amoon ak lañ ko may lu ñu amoon liggéeyal Sëñ Tuubaa rekk lañ ko may te sellal liggéey ba nag Sëñ Tuubaa mooy koo xam ne aw xeer sax boo ko yëkkatee ngir jëmmam bu sa yéenee sellee loo ci am ko lu waay sàkku ci barke maam ko loolu loolu la ko yàlla defal lu way sàkku ci barkeb sëñ Tuubaa bu sa yéene selle nga amee ko ni nga ko bëggee kon nañu delluwaat doon ay talibé doon ay murit du ñëm ci murit ni ko sëñ daan waxee du ñëm ci murit waaye ay saadeex la ñuy doon la sëñ daa ay jullit yu wér ak jullite suñu changé ba dalaa wax ne suñu changé ba dalaa wax ne murit ba gën ci murit yi loolu daa wax dara wax ne murit ba gëm ci ba gën ci murit yi mooy murit bi yor ngëmuk Cheikh Ibra ak diine Sëñ Mbàkke Buso loolu la wax ne murit bi gën ci murit yi mooy murit bi yor ngëmug Cheikh Ibra waaye ak diine si Mbàkke Bousso fay wàjje loolu moo feesoon dale ci mag ñi am na ku ñu daa wax si Moussa Niang foo ko masaana fekk ñu ngi julli te soo nekkoo ko kay wuy sëñ Tuubaa bu jugee sa kaw lay jàpp nga xam ne daa mujjoon mag ñi dañ ko ci xamoon ba ku koy woos na koy wuy sëñ bi doo taxaw ci kanam da ngay taxaw fële sori ko koy doo ko woo mag ñëpp ba ci Sëriñ Modou Fadia mi ñuy waxtaane noonu la meloon noonu la fi nekkee woon ci lu baax ba atum 1923 mu daa dundal gàmmu gi fii ci pénc mi gàmm gu mujj gëm mujj def dafa dajale mbooloo mi ne leen ku dul fen ndey wax na ak man muy sama borom nee na ma at mii lay mujj daje ak yéen ni ko talibe yi tàmmee woon ak li ñu xamoon ci moom ni mu doone woon buntu ma yërmande yàlla buntu fajuk aajo buntu jëmm joo xam ne aajo ju nit am ci moom bu egsee mu faju mu keroog la toog ak talibe yi ne leen bis ni ki tey day sama borom xamal ne ma ne ma dootuma dajawaat ak yéen muy lu dis ci ñoom mu ne leen bu ngeen demee nag ba gisatu leen ma na ngeen dellu ci sëñ Tuubaa ma ma boole woon ak yéen muy jë muy jëfi ngor muy jëfi ngor loolu mooy teraanga dëgg nitu teraanga day delloo teraanga kuñ jox teraanga nga ne maa ko moom bado la nga nitu teraanga day delloo teraanga bi ko sëñ Tuubaa teralee jëlaat na teraanga jëpp delloowaat ko sëriñ bi ba mu fi bëgg a jógee noonu 1923 boobu mu wax ne su ma fi jógee na ngeen ma def fii ma doon jaamu yàlla ndax ngeen noppi maa gis du tee ma mënal leen noonu la di noppaloo le 10 janvier 1923 bàyyi suñu Mbàkke Buso ak bàyyi suñu daam ñëw taxawu ko suñu Mbàkke jullee ko suñu Mbàkke mi julloon suñu Tuubaa moo jullee si Moodu Fadima ñëw taxawu ko ba nañ ko dencee fii ci pencam mii bi ñu ko dencee itam mbokki taalibe bi yëpp delluwaat ci sëriñ bi waat ci biir yoon wi keroog 1923 boobu la ko doomam Sëñ Mor Anta Niang njëkk wuutu wuutu na ko 1923 ba 1926. wuutu na ko 1923 ba 1926 ginnaaw ba bi mu fi jógee 1926 la ko Sëñ Moodu Xëri vingt 1926 boobu ba 1989 bi si Modou Khary jógee bàyyi Serigne Niang doomi si Modou Fadiama ba tey moom itam di jàmbar moom bàyyi Serigne si Modou Khary jàmbaar la woon lool bokkoon na ci taawi si si Modou Fadiama yi mu jëbbaloon Sëñ Tuubaa moo magam si Mor Anta ku liggéeyal Sëñ Tuubaa la noonu la fi nekkee ba ni mu fi jógee atum mil 989 euh, ginnaaw bi bàyyi sëriñ toog ci xilaafa gi doon jàmbaar lool liggéey fi liggéey bu rëy jumaa ji newoon fii jumaa ju amoon jàkka ji soon ji moo ko fi defoon baax doonoon jàmbaar lool bi mu fi jógee atum l'an 2000 la ko suñu Cheikh Niang doon sët bi ko njëkk wuutu moom si Modou Fadiama l'an 2000 euh, moom itam liggéey fi liggéey bu rëy wax dëgg yàlla ba 2019 doon ku bëggoon alxuraan lool loolu moom ñun ñëpp seet lañ ci bokk ci ñi fi taxawal naa fi léegi fii ci jàkka ji nga xam ne mujjoon na gone yëpp yittewoo wax alxuraan ngir ni mu daa terale alxuraan ci kanamu ñëpp ku bëgg alxuraan la woon ku baax la woon moo fi taxawal jumaa ji liggéey fi liggéey bu rey noonu itam suñu dëkk awa balla jotu koo wuutu waaye moom itam ci njabootam la woon ku liggéeyal la ku taxaw la itam ci wetu si mudu xari ku taxaw la woon itam ci wetu ci dëkk bi ba kilifa gu baax gii fi ne di Cheikh Mamadou Lamine Bara ñu di ko ñaanal yàlla mu yàgg fii moom itam ku am yéene la ku ku bax la suñ baara mën suñ Modou Fadiama laa koy xolé suñ Modou Fadiama la ci wet yëpp suñ Modou Fadiama la ci ndey suñ Modou Fadiama la ci baye moko fep gennu ko fenn ndax ndayam di soxna bu so ñang mi, do mi Mati la Malaamin Mati momu moko ko Modou Fadiama bokk ben baye suñ Modou Fadiama jur suñ Modou Xadim mu jur ko mom kon gennu suñ Modou fenn ñu ko ñaanal yalla mu yagg fi ta and ak wër di sant ñep di gëreem ñep di jéggulu bu baaxa baax xam ne ñuma jox dañoo am yéene ci man te bëgg ma waaye waaye xeebu naa ci lool di sant bu baax di gërëm di wax salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu